dal leen ak jàmm mbokk internet yi ndajeb suufa na ci mbiruma cantaakon bi di soxna Aida jàlloo waaye ki mu dajale bi yoon du kenn ku dul kilifa gu mag gi sëriñ Muntaxa Mbàkke foofu le ca poroxaan gi nga xamante ne fa la nekk jamono ji soxna Aida Diallo soxnaab sëriñ Cheikh ca Thioune ba woon nekk jamono ji di leaderu cantaakon yi moom la yenn ci bëgg néegu sëriñ bi fexe ba dugal ko ca kër sëriñ Muntaxa Mbàkke ba ca poroxaan boobu daje bu ñu amal ci sutura ñu bari yëguñu ko ma nga amee ca guddib àllarba jàpp alxamis ca poroxaan ga nga xamante ne jamono ji xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké fa la nekk ci ay bés yi ñu weesu ñu sumb boobu le dajee bokk na ci ñoom ñaari kilifa yu mag yu ñu ku ci mel ni non déet bàyyil ñu bàyyi yi noonu en tout cas ñaari mbàkke mbàkke lañu ñoom ñooñee ñoo fexe ba boobu le dajee daal di am waaye ca nañ leen ko xamale ci suñuy njëlbeenu kàddu boobu le dajee dajeb suuf la daanaka sax bi soxna sii di ñëw jaarale wuñ ko ci buntu bu mag ba ca ginnaaw lañ ko jaarale ca porte bu ndaw ba gannaaw bi ñu jullee timis ba pare ñu ngi ko dalal nag ca ab salon privé boo bile moo ko moom daanaka lu bari ci bëkk néeg yi yëguñu woon li xew kenn dong ci ñoom moo yëgoon ne soxna si lee dina ñëw def si ziar moom soxna Aida Diallo jëwriñ de cantakoon wala sax de Aida Koon àndoon na ab benn délégation bu ndaw lu toll ci juróom benn cantakoon gisee nañu ak xalif général des mourides ci teewaayu euh, bëkk nekk bi gën a sës rëkk ci moom te moom itam mel na ni yëgul woon li xew lépp dañ ko amal ci sutura ab jàngkatu xasaay te buy wuye ci turu Madické moom nga xamante ne jamono jooju soxna si di ñëw ma nekkoon ca boobu gaawantu yëkkati dal di koy déplacé laata rek soxna sii di yegsi ca barab ba liñ ci doon ragal mooy ñëpp xam ne soxna si ma nga foofa ca barab ba ngir bañ mu jural coow kilifa yi ñu leen wax ci kaw ne ñoo sumb boobu la daje soxna Aida Diallo ci kanamu sëriñ Muntaxa Mbàkke yeesalaat na ab njébbalam dal di def ay tuub yu am solo jéggalu ci lépp lu ñu mën a jàppee safaan ci doxalinam te jébbal ab ziyaaram xalif général des mourides ànd ak loolu mu fësal bëgg-bëggam si taxawal la wala sax ñoŋal taxawaayam ci yoonu murid jàppale Cheikh Ahmad Bamba ci topp ak tënku ci ndigal yi nga xamante moom la boobulee xalif général de Serigne Mountakha Mbacké joxe xalif général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw si bi nga xamante jot na diglu bu baax soxna si lay di soxna Aïda Diallo nangul na ko siyaaram dal di koy jéggal waaye laata loolu del si war na ci lu yaatu ci li nga xamante ne moom mooy dox ak doxalin yi nga xam ne moom la ñu nammoo ci yoonu Mouride teg ci daal di koy ñaanal la ñaan yu am solo waaye ba tey moom itam di soxna Aïda Diallo laata muy dellu jébbal na xalif bi ab enveloppe ak ay tonni ceeb yu bare jërë ngeen jëf